di julli ci yonent bi ah, di sant sëñ Touba bi ñu duggee ci weeru koor bi ci bisimilah rahmaani rahim nekk ci ci jàmm ba génn ci ci alhamdulilah rabil alamin ñoo ngi jël nuyu bi gën a sell di nuyu président de la république président Macky di nuyu gouvernement bi yëpp di nuyu suñu nuyu bopp ah di ko teg. ci loxo imam imam Serigne Moustapha Abdou Khadre ibn Khadimu Rasol di jël nuyu président la république ni ma ko doon waxe di ko teg ci loxo imam di ko ñaan nuyoo boobu di nuyoo ndokkeel it di ko ñaan moom imam mu teg ko ci loxo Serigne Sidi Makhtar Mbacké xalif général bu lu murit di sàkku ñaan ci sëriñ bi ndax kenn wuti euh, kenn fàttewul ne nawet dugg na incha allah ñu président yónni ñu nañu mi ngi sàkku ñaan ci xalif général kullu murit sëñ Sidi Matar yàlla na fi yàgg te wér mu ñaanal réew mi ñu dugg ci nawet boobu it ci bisimilah rahmaani rahim mu nekk nawet bu barkeel ci réew mi wuute wuñu it xam nañu ne ci kanam tuuti incha allah lu mel ni ay jongante ci jàmm rek dina am ci réew mi ci mbiri zahir mën nañ ko waxee noonu mbiri politique ñuy sàkku ñaan ci sëriñ bi pour réew mi ñu dugg ci ci bismillah rahman rahim génn ci ak yar ak jàmm ci alhamdulillah rabil alamina réewu Sénégal rek moo ciy gañewaat donc loolu ñuy sàkku ñaan ci mbir moomu it ah bu loolu weesee it ñoo ngi indi njaalu président de la république président Macky Sall ci umma bi yëpp ndax barki démb dégg nañ ñun ñëpp suñu papa suñu xalif suñu xarit ah di Alaaji Moustapha Cissé bu biir wàcc liggéey loolu président mi ngi lay mi ngi jël njaali njaalamit di ko jox peuple sénégalais di ko jox umma islamique ah di ko jaal ñëpp ak famille bi nga xam ne mooy famille El Hadj Moustapha ca biir ci suba it ñëpp dégg nañu kilifa gu mag bu ñu ràññee ci réew mi ci liggéeyam ci patriotisme ci engagement en faveur de la république di premier ministre Habib Thiam ñëpp dégg nañ ne wàcc na liggéey président yónni ñu it di sàkku ñaan ci xalif di sàkku ñaan ci umma bi yëpp di sàkku ñaan ci këri dine yëpp ñu ànd ñaanal El Hadji Habib Thiam Euh, yàlla xare ko biir àjjana euh, te baal ko dugal ko biir àjjana xam naa président ci boppam dina dellu si ci moom rendre ko loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom la ñu ñu andi woon fii tey euh, bi ñu jullee ak umma bi ak suñu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di sant leen gërëm